waaw euh, nomination bi euh, lu baax la parce que boo xoolee euh, ñu ñëpp moom lañ moom lañ doon xaar mu nekk président. Sénégal am donc donc comme yi moom plein am la. te yàlla dafa def Diomaye nekk président donc moom moo ko xajal rek jox ko ñu def ko premier ministre loolu lu war la waaw lu war la parce que parce que moom lañ doon xaar mu ñoo nekk mu ñoo nekk chef du gouvernement donc loolu sant yàlla sant yàlla. waaw vraiment rafetlu naa ko trop trop trop. parce que Sonko mënul dem Diomaye du moins mënul dem sans Sonko parce que liggéey bi dafa yaatu yaatu boo xamante ne foog Diomaye Sonko épaulé ko parce que grand gouvernement dafa dafa nekk charge boo xamante ne dafa lourd parce que responsabilité bu mag a mag la te xam naa ni Sonko moom am na maturité bi même Diomaye am na maturité bi mais tamit foog Sonko accompagner booy accompagner le président Diomaye non non Sonko du ko sul Sonko du ko sul parce que euh, comme ñoom ñaar ñooy liggéey te te maanaam li li gi naan so xotti si ak def ci la rek waaw donc donc mënu ko suul ñoom ñaar ñooy liggéey Sonko bu bu liggéey bu su baaxee jomaay moo liggéey jomaay bu liggéey mu baaxee Sonko moo liggéey benn rek. non mënul suul jomaay parce que grand Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko affaire bi nekkatul sax ay muroog soo xam affaire bi léegi lan la gouvernement bi léegi xoolal muroog lem la grand léegi affaire bi la. parce que gouvernement bi grand du ay caaxaan quoi franchement parler parce que Sénégal Sénégal ku ko yàlla dénk dénk rek xamal ni dénk na la lu doy waar